يا طالب الفناء في الله قل دائما الله الله أجمل يا طالب الفناء في الله يا طالب بسكو ولا يا سكو قد بنا خمنا نغاجك سكو ندير جيختي يا الله برم سبحانه وتعالى قل وخال دائما سك جور دائما فومنا نك دك وقت فومنا نك لو منا دف الله الله kon mu ubbil la buntu bi nga xam ne yow mi sàkku wala yow mi bëgg a jeex ci yàlla yow mi bëgg a am maarifatu billahi li la koy may jox na la yoon bi te mooy nga sax dàkk ci sa dund foo mën ne loo mën a di wax baatu allah allah ndax ki ngay sàkku mooy loolu allah allah ci la jaam bi mën a jaar pour mën a àgg ci borom bi subhanahu wa taala moo tax mooy la yow mi koy sàkku te bëgg jeex ci jëm yalla ji bëgg jeex ci pee yalla bi fexel bay bari lo koy tudd ci yagge mu jeex ci yow su jeexé ci yow nga yow doto nekk ngay mujj nek ko mo waral ku bëgg jeex ci yalla rek bari lo koy tudd waghib fihi an siwahu ana waghib fihi an siwahu so bëree loy tudd nak allah allah ba pare waghib nga ba nga dëdd nga sori lépp lu dul yàlla nanga ko sori waaw ndax mënoo di bëgg yàlla ba pare di ko booleeg leneen ndax yàlla moom ku jëm ci moom moom rek rek rekk rek ngay jël teg ko ci sa kanam mboolem lu dox ci sa digganteek moom yëpp nga sànni ko pour mën a àgg ci moom ndax yàlla fiir na fiiraange goo xam ne loo ko booleet moom du ñëw te lépp loo ko bëgg a booleel it mu bàyyee la loola des ak boppam ndax moom moom mooy kamaal te moo mat te moo mën a matal léegi nag yow mi ci te bëgg a mat il faut nga dem jaxasoog moom soo bëggee jaxasoog moom nag bëgg a ànd ak keleen bëgg a boole leleen bëgg a jël leleen ànd ak pour àgg ca loola doo àgg moo tax da ngay sori da ngay bayyi lepp luy jëmmi aduna wala lepp lo xam ne jëmmi bànneex la wala lepp lo xam jëmmi bëgg-bëgg la nga bako ko dëdd ko sori ko ray ko ci sa bop su ko défé su lol dé ci yow dootul am su boba nak nga dem ba ag ci jëmmam jëmmam borom bi subhanahu wa taala motax tax mu la warib fi an sibahu nga sori nga dëddu lépp lu dul yàlla maanaam sooy bëgg daal na doon jëmm yàlla ji képp su boobaa wachat bi xal bi ka allah wachat nga seere bi xel bi ka ci sa bi yow jaam bi nga xam ne yaa taxaw àgg ci yàlla wala yow bi nga xam ne yaa bëgg yàlla wachat nga seede bi xel bi ko ci sa xol bi allah yàlla rek a fi na soo koy seere nag danga koy saxal dëggal ko te di ko dund ci ëpp solo washhad bi xal xalbika allah na nga seede te dëggal te saxal ne dara nekkul ci kaw ni bi lu di jëmmi yàlla ji loolu nag mooy waral lépp loo xam ne yaa ngi jëflante ak wala lépp loo xam ne yaa ngi ciy teg sa bët bi ngay gis jëmmi yàlla ci ca loola looloo waral doo soxor doo xiñaan doo bëgg àdduna doo rëy doo siis doo bon doo fen doo tappale doo def daray ñaawteef ci àdduna looloo waral da ngay dem ba nit ñi dee fii sax da leen di jàppee yàlla ndax kuy ak sa borom da nga wara am xorma wara am teggin ci ñoom looloo waral doo mën a def kenn lu bon mooy waral nag sa xol bi su setee wecc wecc wecc ba nekk xalban saliman nga mën a àgg ci yàlla ndax yàlla moo ko wax illa man atallaha xalbin salim kenn mënta jot yàlla wala kenn mënta àgg ci borom bi lu dul xol bu set te sa xol bi nag su fekkente ne am na lenn lu ci nekk rek loo xam ne da tere ci yàlla doo gaaw àgg moo na nga dëddu na nga bàyyi na nga sori lépp loo xam ne gàllankoor la bu la gàllankoor sa ak sa borom nga ba ko lépp loo xam ne tamit yaakaar nga ne soo ko defee du la àggale ci sa borom nga ba ko nga seede ci sa xol bi te dëggal te dund ne yàlla rek a nekk te dund ak yàlla kese su boobaa wajma humumaka fiihi wajma na nga dajale humumaka sa bëgg-bëgg yépp sa hitte yépp na nga ko dajale fii ci moom yàlla su boobaa yow àdduna bi lu fi nekk ci tiraanga lu fi nekk ci naqar lu fi nekk ci bànneex lu fi nekk ci xéewal lépp lépp lépp na ko jël teg ko ci sa ginnaaw sa yitte lenn kese lay doon imamuka sa yitte lenn képp dong lay doon mooy jëmm yàlla ji loo rek ngay soxla waroo soxla dara mënoo ne dama bëgg àgg ci yàlla bëgg am milliard mënoo ne damaa bëgg àgg ci yàlla bëgg am xam-xam mënoo ne damaa bëgg àgg ci yàlla bëgg am wilaaya mënoo ne damaa bëgg àgg ci yàlla bëgg am daraja mënoo ne damaa bëgg a àgg ci yàlla bëgg a am mbooloo mënoo ne damaa bëgg a àgg ci yàlla bëgg a am fatxu déedéet yow lenn rek a lay ñor mooy naa dem ba àgg ci jëmmi yàlla ji la la yàlla defal nga xam ne loolu la waaye nag su fekkente ne yaa ngi bëgg a dem ci yàlla sikkar yi ngay sikkar yëpp nga ne dafa am loo ci bëgg lu dul jëmmi yàlla ji wala dama ci bëggaale lii loolu nga ci bëggaale moo lay yàqal ba doo àgg moo tax su fekkee da ngay zikkar baatu allah wala ngay zikkar pour àgg ci yàlla zikkar bi doo ko def ngir li la yàlla di fay mais danga koy def ngir jëmmam ji moom kese ci ngay doog a amee moo tax lépp loo xam ne waxuñ la nag doo jëflanteeg nit ñi da ngay dem ba benn instant même sooy jëflanteeg nit ñi sax jëmm yàlla ji ngay teg ci sa digganteeg nit ñi loolooy tax nga am li nga bëgg moo tax sa yitte yépp sa yitte yépp nang ko jël yóbbu ko mu nekk loo xam ne soxla bi mooy àgg ci raaya bi maanaam daraja bi raaya maxsatul raaya bi mooy nga àgg ci yàlla bu boobaa tukfa bihi an gayrillaahi lépp tukfa dana la doy bihi ci moom an gayrillaahi lu dul yàlla su boobaa yàlla rek lay doy su boobaa yàlla rek moo lay doy ndax dara dara daara dara ci àdduna bi dootu la saf lu dul jëmmi yàlla ji dara dara dara ci àdduna dootoo ko bëgg lu dul jëmm yàlla ji su boobaa lépp looy wuti te amoo ko it da ngay jàpp ne lii nii xëy na yàlla moo dogal aw ma ko lépp loo xam ne am nga koy dañ ciy sant borom bi xam ne lii yàlla ma ko jox waaye lépp loo xam ne tamit day jar nga def ay coono pour am ko doo ko dootoo dootu maanaam dootu ko jar ndax yow la ca loxo yàlla ba képp ngay doyloo moom ngay lépp lu lépp loo yor rek da ngay xam ne lii moom la awraam lépp luñ la xañet nga xam ne lii nii waruma koo am noppal sa bopp looloo waral suñu maam Cheikh Omar radiallahu taala anhu moom mi nga xam ne danaan wax ne man samay yar doomi aadama bi dama koy yar ba nga xam ne day doyloo boromam subhanahu wa taala wala wax muy wax waxam ju réeje man cheikhu ci loxoy yàlla ba laa gën a wóolu ci loxoy nit ñi la ca loxoy yàlla ba laa gën a wóolu lu ci loxoy nit ñi ndax nit ñi lépp lu nekk ci seeni loxo suñ la ko joxee tey danañ la ko xañ suba waaye yàlla lu mu la jox tey su subaa mu gën koo dolli moo ko wax su la joxee tey nga yëg ni xéewal la nga sant ko mu dolli la la in shakartum la azidan na ko waaye nag su fekkente ne da ngaa gëm ne lim la jox nii da nga koo xeeb nga teeb weddi ko mu defal la mbugal moo tax aarif bi su fekkente ne da ngaa bëgg àgg ci yàlla bàyyi lépp lu dul yàlla te doyloo ko ba pare wóolu ko moom yàlla yàlla képp donc nekk ci sa digganteeg yàlla dara du ci dox sa yitte yëpp nag nga jël ko jébbal ko ko su boobaa yàlla doy la yàlla di nekk ci say soxla su boobaa nag wakkun abdan sirfan lahu waaw su boobaa wakkun abdan sirfan lahu takun xorran an gayrillaahi waaw takun xorran an gayrillaahi su boobaa nag wakkun abdan nga nekk jàmm yàlla boo xam ne sirfan lahu Jamu yalla jam bu set wecc ñeel borom bi subhanahu wa taala ngay doon so nekkee jaam set wecc ci yalla su bo nag nga doga am liberté li ñu wax liberté totale nga doga am liberté waye su fekkente ni lepp lo xam yaangi jël sa bët bi di ko ci alalu doomu adam wala yaang koy tek ci bëgg-bëgg aduna bi wala yaang koy tek ci lenn le jaamu yalla yi yor neko ko gor waaw de dedet te tank aggo ci maqamay abudiya nek def sa bop jam bu set wecc wecc wecc monago nek goo nekk gor waaw moo il faut nga gorel sa bop ci fi yalla yi te def sa bop jam ci ya borom borom minde fi waaw ni ngay defee sa bop jam nak ci borom minde fi moy nga gëm te dëggal te seede ci sa xol ne moom rek a fi nekk te amul leneen lu fi nekk lu jëm yàlla ji waaye tamit waaye tamit nga fexe ba goreel sa bopp ci mbindeefi yàlla yi ndax mbindeefi yàlla yi lépp lu ñor nga bàyyee leen ko te doyloo sa borom subhanahu wa taala mu ne waxtum isa tajalla lak waxtum na nga nëbbu isa tajalla su fekkente ne ay tajaliyaat yàlla yi ñu ngi ñëw ci yow nañ ko nëbbu tajaliyaat yi nag du anoiri min zatil ilahi ta jalliyaadi day baye ko leeru yàlla yi di ñëw ci sa jëmmuji su fekkente ne loolu mu ngi am nang ko nëbb bañ ko wane képp koo xam ne dafay wane ay tajaliyaat yi ko borom bi di defal mu koy wax ci mbooloo wala di ko wax ci rajo wala di ko wax ci internet kooku nekkagut arif billahi day nag boppam su fekkente ne dem nga ba def sa bopp arif billahi bokkut a ki nga xam ne yàllaa ko def arif billahi su la yàlla defee nga nekk arif billahi da ngay dem ba am kersa sax tajalliyaat di di ci yow te mënoo ci dara nak ndax min anwaarillaahi wa min anwaarillaahi lay baye ko si wacc ci yow yalla lol mom la sopp koy def pour jami xam ne am na nga gis ko sikar ba yaramam tang nga gis ko sikar ba ay leer wacc ci mom nit ñi gis ko di bëgg di sopp di ko mu leen ni daw dal na suñu serigne Cheikh na Tidiane cheikh waaye ba mu demee ba jot ndigal ne waratuta daw nit ñi dafa war a fexe ba moom li mu mos mu mosal ci gaa yi donte lam mos moom ñun attanuñ koo mos mënuñ koo mos waaye daf ñu ciy mosal lam mos daf ñu fi mosal ñu mos ci waaw moo tax léeg-léeg damay faral di wax ne amul benn benn waaye ju mën a jóg taxaw ne damaa bëgg a xam borom bi subhanahu wa taala te jaaroo ci tarixa ceex ni ndax mooy yoon bi gën a gaa bi mën a àggale jaam bi ci boromam te mooy yoon bi gën a gaaw bi mën a wan jaam bi boromam moo tax tajaliyaat yooyu si wàcc ci yow da koy nëbb su ko nit ñi gisee ci yow nag di ko wax baleen ñu wax ndax loolu coobare yàlla la waaye nag su fekkente ne tajaliyaat yi wàcc ci yow da ngay wër di ko wax di ko wane di ko wane yow nekk goo aadi waa ji mu ne faxaniyaan maa ngi ndokkeel li man macha ci ki nga xam ne day dox fi tariqi zikrillaahi maanaam ci yoonu tudd yàlla maa ngi koy ndokkeel ay waa maanaam mu ngi ndokkeel ki nga xam ne dafa dafay dox pour àgg wala pour xam boromam subhanahu wa taala waaye jaare ko ci yoonu tudd yàlla di wax allah allah allah allah wala muy wax laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah wala muy wax laa ilaha illa hu laa ilaha illa hu laa ilaha illa hu subhaan subhaanallah walhamdulilah wala ilaha wallahu akbar yaa xam waaye ñun buñ ciy wax ñun mooy laa ilaha illa allah ndax moo ëpp doole te moo gën a gaaw pour àggale li ci sa borom wala ngay wax baatu allah allah allah gannaaw nag borom xam-xam yi dañuy ndokkeel ñooña yàlla nañu la na ngeen wax allah yow nga ñëw taxaw ne dajee di wax baatu allah bokkaale la cirque la sa problème la yaa xam ya yaa ko wéetoo ñun suñu nekkul ci loolu waaye li ñu leer ba leer mooy ñun dañuy wax allah te danañ sax di ko wax ndax yàllaa ñu ko digal ñu war koo def te it utuñ ci àdduna bi lenn lu dul jëmmi yàlla ji te pour ñu am jëmmi yàlla ji mooy il faut ñuy bari lu ñuy wax baatu allah allah allah waa ji nag nee na mu ngi ndokkeel képp koo xam ne da ngaa dox jëm ci yoonu yàlla ba pare jaaree ko ci yoon bi nga xam ne mooy yoonu zikrullah ndax tudd yàlla mooy àggale jaam bi ci yàlla sa àggee ci yàlla nag yàlla mujj nekk la soo nekk yàlla su la nekkee nag nga mujj nekk ko soo ko nekkee nag jaam desaat nekk jaam di ko jaamu ba keroog ngay dajeeg moom fay la boppam waaye nag ki nga xam ne nag day taxaw di diingat zikrallah wala di ko saboote wala di ko xeex kooku problème am la moo xam waaye ñun danañ sax di tudd yàlla ba keroog ñuy dajeeg yàlla yàlla fay ñu yàlla loolooy xasida bi loolooy bayit yi nga xam ne moom la waa wax fii ci ki nga xam ne dafa jóg soobu pour dem sàkk borom bi subhanahu wa taala mu wax ko ni mu wara def pour am yalla moy da ngay dem ba set wetch manam nek Abdam qalisan jam bu set sur sirfan lahu jaam bu set wetch sa diggante borom bi soko defé rek noppal sa bop ag ci yalla set nak suñ ko xam moy da ngay fexé ba génne sa bop ci reuy génne sa bop ci soxor génne sa bop ci kañaan génne sa bop ci bëgg aduna génne sa bop ci bëgg daraja sa bop ci bëgg mbolo yooyu nga xam ne ay ay xijaab la ay kiiraay la yu dox sa digganteeg yàlla nga fexe ba génnee ko ci sa dund gi su ko defee yàlla kiiraay yooyu noonu su dañee rek nga janoog moom ndax yàlla wax na ci alxuraan ne du ngeen ma gis waaye nag da ngeen ma gis di ngeen may gisee du ngeen ma gis mooy fekk yaa ngi taxaw ci taxawaayu Moussa ba Moussa taxawoon di wax yàlla ne ko dama laa bëgg a gis doo ma gis waaye fekk taxaw nga ci taxawaay bi nga xam ne Moussa jógee na fa bu taxaw taxawaayu yàlla danga ma gis ndax Musa dafa wax yàlla ne ko dama laa bëgg a gis yàlla ne ko lan taraani waaye nag walakin unzur ilal jawali fa in istaxara makaanu fa sawfa taraani loolu nag bari nañ koy naan la musa yàlla da ko wax ne ko su montagne bi saxee nekk du montagne déedéet musa ba mu bëggee gis yàlla dafa wax ne ko dama laa bëgg gis yàlla ne ko Moussa mënoo maa gis ndax sa jëmm ji attanul gis yàlla waaye nag su fekkee bëgg nga maa gis da ngay dem jóge ci place bi musa ne Moussa jógee ci place boobu dem ci place yàlla pour mën ko faa gis ndax lépp loo bëgg a gis te fekk ko ci bërëb bam ne doo gis te yàlla ku ko bëgg a gis ko nga ci yàllaam ja mën koo gis kon loolu mooy ki nga xam ne soobu na pour jéem a xam yàlla ni muy def ba xam ko ak ni muy def ba gis ko waaye nag li ci ëpp doole mooy zikrul ilahi boole di ko sellal ndax wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu